l'opposition radicale organisée dans la coalition Yewwi Askan Wi que nous avons l'habitude d'abréger Yewwi est dans une dynamique de violence insurrectionnelle qui ne dit pas son nom. Assurément, la deuxième vague plus dévastatrice compromettée aux populations sénégalaises est en préparation, après celle du mois de mars qui avait occasionné la mort de 14 jeunes, le saccage de magasins de grande distribution, l'incendie de station de service, de domiciles de personnalités politiques et d'avocats, de véhicules de journalistes calcinés les attaques des institutions de la République, préfecture, commissariat de police, brigade de gendarmerie, d'organes de presse, etc. Deux prétextes sont avancés pour justifier une telle opération devant l'opinion et mobiliser les jeunes. On nous parle de la convocation de Barthélémy Diaz par la Cour d'appel et bien sûr, comme autre prétexte, le rejet des listes de la coalition Yewwi Askan Wi. Un troisième point en est greffé la confiscation du passeport de Sonko que je n'avais même pas envie de citer. Nous disons que concernant la convocation de Barthélemy par la cour d'appel, il est tout de même curieux que pour une assignation à comparaître en chambre d'appel pour le 10 novembre 2021, que Barthélémy Diaz nous débite encore le coup de la thèse du complot politique déjà utilisé par son ami Sonko à propos d'une affaire l'opposant à la famille de Ndiaga Diouf. Affaire pour laquelle lui-même, Barthélémy, et sa défense ont fait appel. Suite à sa condamnation en première instance, pour deux ans de prison, dont six mois ferme et une amende de 25 millions de francs à verser à famille du défunt. Un agenda programmé par la Cour de justice depuis le 7 juillet 2021 à la suite d'un renvoi de la dite Cour. rapport de Walfari Walfadji Net du 8 juillet 2021 et d'autres organes de presse bien sûr. Depuis très longtemps, les parties au procès ne se présentaient plus au tribunal. La dernière fois, seuls les avocats du maire socialiste avaient marqué leur présence en l'absence de leurs clients, ce qui avait poussé les juges à renvoyer l'affaire pour comparution des parties civiles. Il apparaît clairement dès lors que la tentative de faire l'amalgame entre cette affaire de justice et la candidature de Barthélémy Diaz à la mairie de Dakar aux élections de janvier 2022 est une grossière manipulation qui ne résiste pas L'appel aux jeunes de sortir massivement dans la rue pour l'accompagner au palais de justice est encore une tentative déguisée de semer le désordre et de provoquer la violence, permettant à une certaine opposition irresponsable de tenter d'installer le chaos et la désolation. Cela, les citoyens ne sauraient l'accepter dans un contexte où tout le monde espère une sortie de crise post-Covid. C'est pourquoi la coalition, la grande mouvance présidentielle Benno Bokuyakar dénonce avec la dernière énergie ces agissements qui violent toutes les règles républicaines et dont le seul objectif est de créer un climat de violence et de terreur permettant à l'opposition radicale de pousser le pays vers le chaos, ce que nous n'accepterons jamais. Concernant le rejet des listes de Yewwi Askan Wi, là également, personne ne peut comprendre que les dirigeants de la coalition de l'opposition extrémiste puissent appeler leurs mandataires à aller envahir les préfectures et les sous-préfectures sans attendre la saisine des tribunaux sur ces questions euh, qui ne sont pas encore traitées. Notre conviction et alors qu'elle veut utiliser ces rejets pour jeter le discrédit sur le processus électoral en cours, l'arrêter et s'en servir pour pousser les jeunes dans les rues et appeler à la confrontation avec les forces de l'ordre, afin de faire advenir la deuxième vague, plus destructrice, promise depuis mars 2021. Nous tous nous en rappelons. En dehors de l'amateurisme qui transparaît dans les motifs de rejet de ces listes, il est à croire que ces travers ont été délibérément provoqués par cette coalition extrémiste pour créer une situation de confusion pouvant justifier leur appel à l'occupation des préfectures et à l'insurrection violente si la police devait s'opposer à leur acte destructeur. Ces agissements, à la limite du criminel, montre, s'il en était besoin, le cynisme de ces apprentis sorciers, prêts à plonger une seconde dans la violence et la terreur pour se frayer une voie la prise du pouvoir par la rue. que, conscients de leur défaite cuisante au soir du 23 janvier 2022, mais c'est en cela que Benno Bokk Yakaar condamne avec fermeté et appelle ses militants et sympathisants à la mobilisation afin d'aller partout, et je dis partout, porter le message de paix, mais également de vigilance, pour préserver celle-ci afin que le processus électoral en cours dans toutes les localités puisse se dérouler jusqu'à son terme dans la sérénité et le respect des normes de la démocratie républicaine. Benno Bokk Yaakaar la grande coalition demande solennellement à l'opinion nationale de dénoncer avec plus de vigueur encore les appels à la violence lancés par l'opposition radicale et ses tentatives annoncées de plonger notre pays dans la violence, l'instabilité et la terreur. En dépit des prières et appels à la paix formulés par nos guides religieux, toutes confessions confondues, il faut aujourd'hui noter de manière particulière les forces vives de la nation, travailleurs organisés dans les syndicats, patronats, commerçants, industriels, organes de presse, journalistes, etc., qui ont été les victimes des actes de terreur, de vandalisme et de pillage perpétrés par les militants de PASTEF en mars 2021. ils sont tous avertis. Et un averti en vaut deux. Tous doivent se mobiliser pour défendre la paix et la stabilité du Sénégal que nul n'a le droit de compromettre au nom de ses intérêts personnels ou de groupe. Au-delà des forces de défense et de sécurité qui, sans aucun doute, assumeront pleinement leur mission de protection des institutions de la République, de la vie et des biens de tous les Sénégalais, il est un devoir impérieux pour les parents de participer à la préservation de la vie et de l'intégrité physique de leurs enfants en les empêchant de répondre à l'appel de ceux qui, tout en restant tranquillement chez eux, avec leur famille, euh, les envoient commettre des actes délictuels, voire criminels. Pour la paix et la stabilité du Sénégal, Vive Benno Bokk Yakaar, vive le peuple sénégalais. Mesdames et messieurs les journalistes, nous remercions de votre attention et restons à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Euh, moom ma traduction en wolof euh, moom Mohamed Samb moo fa doon. lii day yàq organisation moom mu continuer rek. <laughs> je ne suis même pas en état. <laughs> d'accord. xam nga lii moom yéen a ngi ko def sans moom. asalaamaaleykum mbokk yi di nuyu ñëpp ci seen tur seen sant yéen journalistes yi ñu leen gërëm di leen sant mbokk yi dañ ma laaj ma jéem ko tekk ci ci wolof damay tënk rek moor mënoon na ko def moom mu gën a dégg wolof zaara mi fi mu nekk nii ni mu mën ci wolof moom sax mënatuma ko waaye xëy na bëgg ma sargal rek moo tax ñu jox ma kàddu gi euh, kon li ñu wax si suñu njëleem njëlbeenu waxtaan moo di li ñu gis day yéeme ne te am na lu muy wane ne opposition bi xam ne mu ngi ko ñu ngi tudd Yewwi Askan Wi mu ngi ci tànku yee fitna ci réew mi waaye fitna boo xam ne jéggi na dayo dayo boo xamee ne fa mu jëm mooy taal réew mi waaw digoon nañ ñu fii ñaareelu ginnax bi war a dal ci kaw réew mi te gën a war a mitti bi fi ne woon mars bi paase dégg ngeen ko bu baax loolu lañu ñu digoon askanu Sénégal loolu nag moom la ñuy togg fi mu ne nii fàttaliku leen mois de mars fukki xale fukki ndaw ak ñeent ñàkk nañ seen bakkan te ñoo ko woote woon yàq ay magasin toj nañu ay magasin ay këru commerce yu rëy taal ay station service taal ay këru jàmbur moo xam ñu ne ci nguur gi walla ñeneen dal ci këru avocat taal ay auto journaliste dal ci kaw institution de la république muy préfecture du commissariat de police di brigade de gendarmerie dal sax ci kaw ay organe de presse yéen ñëpp fekk ngeen lii nag ñu yëkki woon mars bëgg ko tollanti ci jamono bi ñu ne fuñ ko tëral lal ko mooy ci ñaari mbir ne loolu moo war a doon liy yëngal fa ñu jëm ngir loolu ñu ne li ñu convoqué Barthélemy Dias ci cour d'appel mooy benn bi ñaareel bi mooy li ñu nanguwul yenn ci seeni lis ngir élection yu ñëw bu njëkk bi lii mbiru Barthélemy Dias dafa yéeme nag ah koo xam ne am na lu mu def ci réew mi ba bakkanu nit rot ca ñu woo ko ngir appel boo xam ne moom moo ko defoon du justice bi moo ko woo ci coobareem moo defoon appel ngir daan yi ñu ko teg fàttaliku loon le 7 juillet ba ñu dajee war ko juger néewu fa ay avocat ne fa ñu reporté ko pour le 10 novembre 2021 déggu leen bu baax li may wax mu ne lii ñu ko convoqué pour le 10 novembre dara lalu ko lu dul politique ngir tere ko doon candidat ci mairie Ndakaaru ndax xel mën na nangu loolu te bu leen fàttali ko jugé woon nañ ko ba condamné ko à deux ans ci deux ans yooyu juróom benn weer rek la ci waroon tëdd waaye dañ ci tegoon ne war na dàmp famille yu Ndiaga Diouf ci lu toll ci ñaar fukki million ak juróom mën naa wax ne justice bu fekkee ne dem na ba taxawal boobu agenda ne war na déglu kii xam ne mooy Barthélemy Dias ndax bañ leen oowee le 7 juillet mënuñu ko woon déglu am na journal yu ne fii ci réew mi bind nañ ko bi ma ci cité rek mooy Walf Net bii xam ne moo génn le 8 juillet 2021 ku ci ne mën na ko seet ci net bi mu ne depuis très longtemps yàgg na ba ñu woowee ñi xam ne ñoo seq mbirum Ndiaga Diouf ak Barthélémy Diaz ngir ñu teew tirbinaal waaye li mujj avocat maire bi rek Barthélémy moo fa teewoon moom néew fa woon loolu taxoon ñi xam ne ñooy àtte euh, puus mbir mi renvoyé ko ngir ñu def ko la. 10 novembre 2021 ngir ñëpp man ci teew loolu la journal bi bind kon di firndeel wax ji ma wax sànq kon lii feeñ ci loolu moo di ne ñu ngi jéem a jaxase xelu ñin ñi jéem leen lëndëmal ngir teg mbir yi ci mbirum politique ne li tax ñu oo ko li mu doon candidat mairie Ndakaar moo tax ngeen xam ne jëfi naaféq mënul weesu lool jëfi rambaaj mënul weesu lool ñu teg ci ne ñoom dañuy woo xale ñu génn ci mbedd mi dem fees tirbinaal ngir lan ngir résister looy résister yow nga def sa li nga def tribunal woote ñu daan la nga ñaan d'appel ñu dem d'appel nga ne dañuy résister looy résister ti lu ñuy résisté ci tribunal moo tax dañu ne lii ñu bëgg a def yee fitna dong yëngal réew mi moo ko waral te loolu opposition bu responsable maanaam bu xam dayoo réew mi fu mu toll dayoo askan wi fu mu tollu du ko def te loolu askanu Sénégal waru ko nangu waru ci tànk xam lu itam surtout ci contexte bi xam ne ñépp lu ñu wittewoo mooy fexe ba mbas mi jóge ci réew mi mu nekk lu diis lu mitti yuy faagaagal lépp lu yëngu ci koom lu yëgu ci diggante nit ak nit loolu moo waral benn Bokk Yaakaar di naqarlu ci naqar fu mën a toll lii xam ne mooy doxalinu ñooñu di ko xarab xarab nu mu mën a toll ci doole ndax lii yépp yëngal réew mi fitnaal réew mi moo ko tax a jóg ngir yée ci réew mi musiba naaru laay sóob ko ci benn tënk ko ci loo xam ne dina mën a xar réew mi walla yóbbu ko ci musiba boo xam ne du ci mën a génn ba mukk bu dee ñaareelu justification bi ñu jëm mooy ne dañu nanguwul seen yenn list yi muy yeewu askan foofu tamit li ci mën a wax mooy kenn mënul comprendre nangu ndax yàgg nañ dem élection locale ñii ñu nangu leen ñii ñu bañal leen ñun jaar nañ ci ñépp jaar nañ ci te am na sax fii su ñun ñoo xam ne xëy na mën nañ ci wax lu leer waaye opposition boobu di opposition fitna nee na mandataire am nañ dem woo nit ñi ñu fees ci préfecture yi ngir lan ngir rekk indi fitna ci réew